moo del siwaat ci seen jotaayu wa rattilil qur'aana tartiila te ngeen koy suivre ci ahlul quran point com wala ci compte youtube yi ahlul quran wala ci la maison du coran ñu taxaw woon ci jotaay bi passé ci buntub aqsaamul madd jàngoon ko leeraloon ca la ñu suñu borom defaloon tawfiq ñu leeral ko ca suñu jotaay bi tey bi ñu war a dugg ci buntub ahkaamul maddi ci téerub tuhfatul atfal bu cheikhina suleyman al jamzuri rahimahullahu taala Cheikhna Souleymane dafa wax ci bunt bi nii lil maddi ahkaamun thalathatun taduum wa hiya al wujubu wal jawaazu wal luzuum xëcc ci alquran ginnaaw bi ñu ko jàngee ba xam ko ci wàllu ay atteem atteb xëcc bi ndax xëcc bi dafa war ñu xëcc ko wala dafa dagan rek wala nu mu demee bunt bi bunt bii loolu lay jànge mu ne lil maddi xëcc am na ahkaamun thalathatun taduum ñetti atte yoo xam ne eh, yu ànd ak xëcc la benn xëcc am benn att ci ñetti att yooyu ma junju nag ni almaddil far'i lañ ci jublu almaddil far'i ndax madd asli moom eh, weesoon na ci jotaay bi paase ñu wax ni daatul xarf lañ jàng xarakateen lañ koy xëcc ñëpp ci bokk yi waaye almaddil far'i la jublu fii ci alma lil maddi lil maddi yaani far'i am na ñetti atte ñetti at yooyu mooy al wujub ak al jawaaz ak al luzum atteb xëcc bi da nekk waajib nga xam ne amul kenn ku ko sañ a xasu la xëcc bi léeg da nekk jaiz nga xam ni am nañu koy xasru am nañu koy madd ña koy madd it am nañu koy tawassut am nañu koy isbaa atteb xëcc bi léeg da nekk laazim nga xam ne ñëpp dañuy dëppoo ci xëcc ko بام غود كان لا خيتي دي نيك اقسام المدود الفرعيه مد فرعي ين نيو تي واجب اك ين نيو جائز اك ين نيو لازم موم لاي ليرال سي لي ان جاء همز بعد مد في كلمه وذا بمتصل يعد nee na fa waajibun dina nekk waajib yaani xëcc bi dina yor atteb wujub kañ in jaa bu fekkee ne dafa ñëw hamzun hamza xarfu alhamza daa ñëw baade mad ci ginnaaw xarafu xëcc fii kilmatin ci benn baat luy loolu mooy xarafu xëcc ñëw na hamza topp na ci te xarafu xëcc weeg hamza wi yëpp ñoo bokk benn hamza gi yëpp ñoo bokk benn baat buñ nekk loolu la ñuy tudde almadd al muttasil moo tax mu ni wa daa bi muttasil yu add kon almadd al muttasil benn xeetu xëcc la ci li xëccu alfar alfariya yi moom atteem waajib la moo tax amul kenn ci qurraa yi koo xam ni dina ko qasr moom kay ñu ngi nekk ci diggante arbaa xarakaat xamsu xarakaat sitt xarakaat waaye qasr moom amul ci lu tax mooy xëcc gi waajib la mën na ci joxe ay misaal lu mel ni baatu si at si at dañuy gis ni yaa dafa xëcc siin gi kon xarafa xëcc ñëw na ci ginnaaw yaa googu xëcc siin gi xam hamza da caa ñëw te yaa gi ak siin gi ñoo bokk benn baat bu ñu nekk madd muttasil mi ngoo ko li waral xëcc gu xëcc gu yaatu gi bu ma nee si at kese si at xëcc na waaye li waral si dolle dolleeku xëcc gogi hamza gi ci ginnaw harfu xëcc wi moy sabab bi moo neewon na la wal akharu al far'i mawqufun ala sabab jotaay bi pass neewon na banen ba tuddu far'i mom day am sabab gis nga fi sababu xëcc gi hamza la kon dolle dolleeku li dolle dolleeku ci xarakateen yi la ko waral moy hamza gi ñëw ci ginnaw harfu xëcc wi te hamza geeg xëcc yu ñoo bokk benn baat kooku atteb wujub lay am kenn amul sañ-sañu bañ koo xëcc lu ëpp xarakatee ni kon dañ koy xëcc si at wala lu mel ni ami samaau ndax samaa miim gi alif ko xëcc ginnaaw alif googu hamza ci ñëw te benn baat la wala lu mel ni almalaika almalaika laam gi alif moo ko xëcc laamuk malaika ginnaaw alif googu hamza fa nekk te ñoo bokk benn baat wala lu mel ni li yasuu li yasuu da gis ni waaw gi siin gi la xëcc waaye ginnaaw waaw gi hamza moo fa nekk te ñoo bokk benn baat xeetu xëcc googu moo tudd almadd almuttasil almuttasil madd muttasil moom yi atteem mooy alwujub kon bu ne ñett attee am wujub jawaaz luzum muttasil moom gis nañ ni ci ñetti att yooyu ci wujub la nekk te moom kese fa nekkit maanaam buñ ne almaddal waajib rek almaddal muttasil lañ ci jublu buñ ne almaddal muttasil rek xamal ni atteem mooy waajib moo tax mu ni فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل وجائز نيدين أتب جوازنا لن مي معنى جائز مي مد وقصر بني مد جائز لا مي دغن نخشكو دغن نخشكو gàttal ko ci biir xëcc gi tamit dina dagan arbaaw xarakaat wala fawqaha wala sittu xarakaat kañ la nekk jaiz maddun wa qasr in nee na bu fekkee ne dañoo taqale xarafu xëcc wi ak hamza gi kullun bi kilimatin bu ci nekk ñëw ci baat wa haada xeetu xëcc gi almunfasil moom la ñu tudde almadd almunfasil almunfasil moom at atteem mooy jaiz lan mooy at bandal munfasil mooy xëcc goo xam ne Hamza ko waral comme gi gi jiitu gi jiitu Hamza ko waraloon waaye li leen teqale ñoom ñaar mooy moom maddal munfasil xarafu xëcc wi ak Hamza gi bokkuñu baat xarafu xëcc wi ak Hamza gi bokkuñu baat buñ nekk sànq ci li bi wees dañoo gis ni xarafu xëcc wi ak Hamza gi ñoo bokk benn baat loolu tax ñu dër ko mu tasul dañoo taqaloo ci baat bi bii nag moom bokkuñu baat bii daa nekk ci baat bii nekk ci beneen kon teqali ko nañ ci baat ñu de ko munfasil moo tax mu ne infasil kullun bi kalimatin wa hada al loolu ay misaal am na fi euh, lu mel ni qu anfusakum qu xarafu xëcc waaw gi daa xëcc qaaf gi jeexal na baatu boppam anfusakum hamza gi door na baatu baatu boppam wala wa ufawidu amri ila allah amri yaa xëcc na raa gi ila hamza gi door na beneen baat yaa ahlal kitaabi ha antum yaa ardu bulaci ibrahim yaa yaa yooyu ci nekk yaa nidaa la yaa gi la xar baat yi ci topp kon seen baatu bopp la te yaa gi xëcc moo ko jeexal yu ji des yëpp hamza moo ko door boobaa madd googu al madd al munfasil lañ koy tuddee moom atteem mooy aljawaaz luy aljawaaz mooy dagan na xëcc ko dagan na gàttal ko bu dee ci riwaayat Xafsa nag min tariq Shaatibiya moom dees na ko tawassut dees na ko xëcc arbaa xarakaat wala xams dees na ko xëcc arbaa xarakaat wala xams ànd ak ne arbaa mooy al adbat wal ashar nga dem ci yeneen riwaaya yi ci misaal fekk ñu koy qasr riwaayat xas min tariqi arrawda wala yeneen turuq yi ci turuq qasr munfasil dañuy qasr da ngay fekk ñu naan qul ya ayuha alkafirun laa abudu ma tacbuduun or que bu dee riwaayat xas min tariq al min tariq ubayd alchatibiya da ngay wax qul ya ayuha alkafirun laa abudu ma tacbuduun ngay xëcc madd munfasil gi li lu tax kii di xëcc kee di gàttal nga dem ci ku mel ni warsh ci misaal mu koy xëcc sittu xarakaat qul yaa ayyuha alkaafiruun laa abud mooy madd gi jaiz la atte mooy jawaaz te neewoon na la wa jaizun maddun wa qasrun kon qasr yaani xarakatee ni madd يعني توسط إشباع مانغوك مثال يا غوك أمنا ينين خيط خيط من تبير المدل الفرعي وحمد دنيور أتب جواز لبن المنفصل غرين جمت تك مويلين يتدى مد العارض للسكون متخمن ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعل إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعينه ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين ومثل ذا يعني دير مم أتي أتي بنا وخني موم المد المنفصل يور دكو يور تميت كان إن عرض كان إن عرض بفكين دا جار السكون سكون مانام حرف خطي نيو ني فك تا وسكون كن سبب نيو ناندخ واخون sababu xëcc yi ñaar la hamza ak sukun kon fii xaraf xëcc ñëw na ginnaaw xaraf xëcc gi sukun nekk fa waaye sukun googi dafa gaar du sukunu cosaan li tax mu gaar mooy ak taxawaay moo tax mu ne in arada bu gaaree as sukunu sukun waqfan ci taxaw comme baatu taalamuun nastain iyaaka naabudu wa iyaaka nastain nuunuk nastain nuun gi mujj ci baat bi aslan sukunul nasta'iinu la bi dam léegi nag bu fekkee ne cee taxaw arab du taxaw ci maska du tàmbalee ci sukun loolu qaa'ida la arab du taxaw ci maska du tàmbalee ci sukun xaraf wu mu war a tàmbalee mu sukun lu mel ni ne hamzatu wasli da koy maas waaye xaraf wu mu war a taxaw tamit mu maas da koy sukun looloo waral mu ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daal gi kon nuun googu sukuunam googu du cosaan ci baat bi waaye aarid la dafa gaar lu tax mu gaar mooy taxaw gi jamil taxaw googu nag boo fa taxawee kon sabab ñëw na ci sag taxaw sababu madd ñëw na ginnaaw xarfa xëcc ndax ayin yaa gi jiitu nuun gi dafa xëcc ayin kon xarfa xarfa xëcc la te nuun gi sukuun na xeetu xëcc googu moom it ci madd far la bokk waaye atteb jawaaz lay yor iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain mën nañ ko xëcc xarakateen mën nañ ko xëcc arbaaw xarakaat iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain kadalika sittu xarakaat nastain lu tax loolu lépp mën a nekk mooy madd gi jaiz la xukmam jaiz la mooy dagan naa xëcc dagan naa gàttal wa jaizun maddun wa qasrun kon ñaareelu xeetu xëcc gi ci xëcc yi nga xam ne seen atte day nekk jaiz mooy almaddul aarid lissukun almaddul aarid lissukun mu indiwaat geneen goo xamante tamit maddam maanaam xëcc gi ci madd far'i la bokk te atteem jawaaz lay doon ci bayt bi tam mu ne aw quddima alhamzu ala almadd badal ka amanu wa imanan xuda aw wala sax quddima ñu jiital jiitaleef alhamzu hamza gi alal madd ci xëcc gi xam nga ci maddal munfasil ak muttasil yépp hamza moo waral xëcc gi te hamza googi daa topp ci xarafu xëcc wi maanaam xarafu xëcc wi ko jiitu léegi nag léeg ñu gis xëcc yoo xam ni xarafu xëcc wi mooy topp ci ginnaaw hamza gi maanaam hamza gi moo koy jiitu لول لا وخ في او قدم الهمزه على المد وذا خچ غوغي بدل مو تود مد البدل مد البدل لو تخ ني تودكو مد البدل موي اصل بعد بدون حرف خچ اصل اصل حرف اي دون حرف مد مثال ام جخ بنكو جالي لو ملني امنو تشوسان البعد بي امنو لون ا منو همزه غو غو غو ني ماس فتحه اك همزه غو ني سكون muy ah menu léegi nag loolu dafa diis ci waxinu arab ñu utal ko solution fexe mu woyof ba tax ñu ibdaal hamza gu ñaareel gi ñu changé ko ib daal mooy wotte ñu wottee hamza gu ñaareel gi alif daal saa buñ koy def dañ fee teg xarafu xëcc woo xam ne day dëppoog maska ga jiitu xarafu woowa maanaam bu dee xaraf yu jiitu xaraf yi ñu ibdaal daa fatxa alif lañ fay teg comme amanu bu dee xaraf wi jiitu xaraf wi ñuy ibdaal dafa kasra yaa lañ fay def comme i maana i maana maana bu dee dafa damma waa lañ fay def comme uutu utu woon nga gis ni kon ci ñetti xaal yooyu yëpp hamza gi wala xarafu xëcc wi du cosaan hamza moo fa nekkoon ñu daal ko alif wala ñu daal ko yaa wala waaw maanaam ñu daal ko xarfu mad xëcc googi ñu tudde ko maddil badal maddil badal nag moom atteem jaiz la comme ni mu ko waxee mithlu dha in arada sukunu waqfan ka taalamuuna nasta eh, aw quddima alhamzu kon afwan aw quddima alhamzu ala almaddi wa dha badal ka amanu wa imanan xuda moo tax ngay dem fekk warsh ci misaal am ci ñetti wajuh yëpp warsh day jàng amanu bil qasr di jàng amanu bi tawassut di jàng amanu bil ishbaa lu tax mooy dafa nekk jaiz xëcc gi daa nekk jaiz dafa nekk lu dagan boo neex nga xëcc boo neex nga ñax ay ñett wajuh yëpp ci dagan am ci qurraa yi wala riwaayaat yi ñoo xam ne dañoo jël benn comme Hafs benn wajuh la jël di wajuhul qasr am ñoo xam ne dañuy jël ñaar wala ñett comme Warsh dafa jël ñett yëpp kon maddil badal tamit atte mooy aljawaaz borom bi teg ci ñetteelu atte bi mooy almadd laazim mu ni wa laazimun in sukunu ussila waslan wa waqfan baada maddin tuwila wa bi nag day nekk laazim in bu fekkee ni assukuunu sukun gi ñëw ci ginnaaw xarafu xëcc bi ussila dañ ko faa cosaanal maanaam dafa nekk sukun asli du aarid sànq wax nañ sukun aarid mu dugg ci biir eh, mat yi nga xamante ni seen atte jaiz la mooy sukun goo xam ne ñëw na ginnaaw xarafu xëcc waaye du cosaan léegi nag bu fekkee ni sukun gi waral xëcc gi cosaan la ci baat bi te ni ngay xamee sukunuk cosaan ci baat bi ci ginnaaw xarafu xëcc mooy boo wasloo sukun gi dafay nekk boo waqfoo sukun gi dafay nekk baynama bu dee sukun gi aarid la bu dee sukun gi du cosaan boo wasloo du fa nekk ci xam nga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in damaa taxaw gis nañ fa moo tax xëcc gi ma aarid li la waaye bu ma taxawul woon daa di wasla wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in uhdina sirata sukun nekkatu fa moo tax madd googu tuddatul aarid xaalal wasl waaye day dellu ci madd tabi'i day génn ci madd far'i dellu ci madd tabi'i yaani al madd al asli ma ngoog léegi bu fekkee ne sukun gi ci boppam asl la li borom ibnul di wax ni saakinu xaalayni yaani xaalal wasl ak xaalal waqf yëpp sukun gi ma fa sukun googi sukun asl lay doon kon boobaa xëcc googu yi nga xam ne sukun asl gi moo ñëw ci ginnaawam xëcc googu yi day yor ak teb alluzum moo tax mu ni wa wa lazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan baada maddin tuwila ginnaaw xëcc goo xamante ni des koy des koy guddal kon li ci topp rek mooy almadd lazim moom yi moom it am na ay ay ay xaaj ci biiram incha allah mooy bunt bi ñu dese ci téere bi dinañ ko jéem a tënk tënk bu gaaw ci sunu jotay bi di ñëw inshallah allah jeexale ko téré bi seen bokk Abou Taha mohammed ali ngeen ngeen andalon ci seen jotay bi tudd warattilil Qur'an tartila te ngeen ñu doon suivre ci ahlul quran wala sax ci compte youtube bi ahlul quran wala la maison du Coran alaykum wa rahmatullahi wa barakatu رتل القرآن ترتيلا